une question par rapport ak euh, engagement euh, artiste si wàllu politique mm-hmm. euh, risque la wala du risque parce que gis nañu ñoo xam ne ils ont pris le risque affiché wu aux côtés de quelqu'un mu xam ci opposition mu xam ci pouvoir bi loolu en tant que artiste bëggoon naa xam aussi ban euh, gis-gis nga ci am parce que on sa s'achemine vers des élections yoo xam ne aussi c'est sûr léegi peut-être après ñu mm-hmm. mujj ci perspective yi avec. Euh, euh frère Guissé c'est quoi. voilà les bon, projets en euh, par rapport à l'engagement xam nga ma je me dis que un musicien ne peut jamais devenir un politicien un bon politicien parce que d'abord la première chose la politique est quelque chose de noble. nit ñi ñoo ko jox beneen visage bu bon fii yenn pratique politicienne yi moo tax kuñ ne politicien sax nga kii mais tout le monde doit nga braqué waaw euh, ñëpp war nekk politicien boo changé woon tour bi ñëpp war liggéey pour seen seen seen gox seen dëkk seen seen euh, seen gestion de la cité gestion de la maintenant engagement ñaar la on peut s'engager ñu ànd ak un un candidat parce que am na lu ñu gis ci moom wala candidat mun na def confiance ci boppam moom mu mu ñëw woo la yow mun nga jékki-jékki nit jël nguur gi ne la kaa ñu liggéey loo war a def da nga war a dem liggéey mhm. da nga war a dem liggéey sinon day nul parce dangay nekk di jëriñ extérieur ñun des fois dañuy def ay affaires gratuites ici parce que à l'extérieur dañ la koy fay tu encadres tes enfants tu fais des masterclass et cetera te dañ la koy fay mhm. sa kër la jëm mais boo ñëwee fii yow tu cherches même à la faire pour mu jëriñ mooy question d'organisation li nga doon wax sànq pour vous vous engagez pas parce que da ngay toog ça te prend ton temps tu as envie de faire tu as envie de rassembler mais ce qui se passe à l'intérieur dafay compliqué mais par rapport à l'engagement il un autre engagement il engagement boo xam ne ça peut être politique c'est de faire bloc et moi ma pensée c'est ça instant bi ñu toll les acteurs culturels dañu war a def bloc daj yaakaar bloc face à pour faire face à quoi face aux autorités face à la politique du tiraillement du xeex du sànni xeeru dara en 2018 avant juste avant avant may dem Chine dafa amoon élection législative en 2018 je pense élection législative yi am man j'ai fait une sortie j'ai vu que ñu ñu sollicité artistes yi di leen tëggaloo di leen woyloo wala di affiché wu ak ñoom j'ai fait une sortie sur benn rajo fii bu ñu xam ak benn journal écrit ma ne leen ce qu'on a euh, soxlawuñ ñun artistes ñu ñuy woo pour ñu affiché wu wala di tëgg ki woy li ñu soxla tey c'est d'aller siéger à l'Assemblée nationale parce que li nekk ci loi bi ñun ñoo ko gën a xam député yi parce que mm. nous sommes des formateurs en droit de travail loi bañ koy bind à deux reprises parce que loi dañ ko bind bindaat ko mm-hmm. ñun ñoo toog ak e-, expert phrase par phrase mot par lii baax nañu bind lii baax nañu bind pendant on a fait des séminaires et des séminaires dañoo maîtriser suñu loi dañoo xam lu ci nekk. Ah, pour siéger à l'assemblée vous n'êtes pas représenté avant euh, moom laa lay loolu assemblée benn point la tout à l'heure j'ai parlé de reconversion mm. artiste en certain moment da nga war a nekk leneen en certain moment parce que expérience moo tax mm. man tey su ma demoon en France ma installé wu foofu su ma neexee en moins d'un an am naa diplôme animateur culturel animateur culturel c'est quoi c'est bac plus fii tey tous les artistes yu am tant d'années carrière tant d'années d'expérience dañu war a jël defar la reconversion pour que yow li nga am dans ta tête nga mën ko yebbi les a c'est pourquoi on a un problème parce que yenn poste yi pour nga mën si accéder il faut nga am yenn diplôme mm-hmm. soo demee si américain bi lan la lay laaj ça c'est le système français mm-hmm. boo demee si américain loo mën qu'est-ce que tu sais faire ce que tu sais mm-hmm. man tey du ma demee université même dew ma indi aux au unis mais au m'envoie des des étudiants. Mm-hmm. nga leen di former. ah ah en tant que culturel. Mm-hmm. te su ma demoon tey bi université américaine damay jàngale. merci pourquoi mënuma ko def fii. am na il faut penser à ça. maintenant nag tout ce qu'il y a par rapport à l'engagement mooy que les acteurs culturels doivent faire benn bloc sur le plan politique ñu peser. kuy ñëw ñu liñ ñu soxla. bu bàyyi di leen utiliser rek naan tracé ko lii ak li lañ soxla parce que li li ñu soxla yëpp xam nañ ko. tout ce qui est ci loi bi pour la culture xam nañ ko. merci beaucoup. ñu seet ñu poser suñu